mbokki jullit yi gana buñu sante yàlla buur bi subhanahu wa taala di julli ci yonentem ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm di sakku ñaan ci yeen di leen bàllu àq di leen bàl àq tey ñaan yàlla sun borom subhanahu wa taala mu boole nu jéggal suñuy àq yi dox suñ digganteeg moom ak suñuy moroomi jàmm di fas yéene dellu siwaat ak yéen tey incha allahu la ci benn kayfiya boo xam ne kayfiya bu am solo la kayfiya bu màggu lool waaye kayfiya boo xam ne jaroon na tey nit ki euh, sol ay dàllam dox diggante réew bu réew ngir am ko walla muy kayfiya boo xam ne jaroon na tey nit ki fay kenn amul fayam sax nit ki joxe alal ju bari ngir jot ci muy kayfiya boo xam ne euh, képp koo xam ne taxoo nga ak moom insha allahu taala te di ko sellal sun borom tabaraka wa taala dana la defal tawfix ba nga yëg ko insha allah euh, laata ñuy tàmbale loolu nag ñu ngi sant mboole mbokk yi nga xam ne ñoom la ñu àndal liggéey bi te mooy ñi nga xam ne ñoo abonné ci chaîne bi tey topp liggéey bi di jaajëfal tam ñi nga xam ne ñooy partager vidéo yi ndax loolu dafa am solo ñoo ngi def lu baax loo xam ne yàlla dana leen ko fay ndax suñ borom tabaraka wa taala mo wax ci alquraanul karim ne fa man yacmal misqaala jarratin xayran yara wa man yacmal misqaala jarratin charran yara ku jëf lu toll ni benn pepp suuf ci lu baax dana ko gis mooy danañ ko ko fay ku jëf safaanu lu baax te mooy lu bon lu toll ni pepp suuf dana ko gis danañ ko ko fay yal na ñu ci yàlla musal te saxal nu ci jëf lu baax wa jazaau sayyiatin lu misluha yàlla nee na jëf ju ñaaw jëf ju ñaaw képp mooy doon fayam waaye man amila saalixan min zakarin aw unsa wa huwa mumin falanuhyiyannahu xayaatan tayibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu yamaluun yàlla nee na képp ku jëf jëf ju baax muy góor muy jigéen te fekk ku gëm yàlla la foofu nag lañ fiy déggee ne mooy képp koo xam ne yaa ngi jëf jëf ju baax lu jëf ju rëy rëy rëy te gëmoo yàlla jëf ju amul solo ca yàlla waaye nee na kuy jëf-jëf ju baax muy xam muy góor muy jigéen te ay te ku gëm yàlla sun borom doon ab jullit muslim nee na bu ëllëgee dinañ la dundal dundal gu tee ci aljanna fay la la gën a rafet ci la nga doon jëf kon yàlla nañu yàlla saxal ci jëf lu baax secret bi ñu leen indil tey nag mooy secret yàlla tiif moom nag bari na ay secret waaye turu yàlla moo mel noonu suñ borom ci boppam moo toll noonu moo tax kii mën naa ñëw joxe ci benn secret keneen ñëwaat joxe ci beneen secret ñu ñëwaat joxe ci beneen secret ëllëg ñu dellu siwaat joxewaat ci beneen secret ndax secret yi mel ne ay yoon la rekk yoo xam ne dañ ciy jaar ngir mën a àgg ci yàlla liñ koy ñaan mu mën ñu ko may ci mbaaxam ak ndimbalam yërmandeem ak ñeewantalam su ko defee incha allahu taala bala ñoo jublu ci li ñu tax a jóg ñi ngi ñaan ngeen abonné ci sunu chaîne yi nga xam ne ñoo nekk ci akiye bi bu dee le grand secret en wolof ngay seetaanee vidéo bi soo xoolee ci akiye bi di nga ci gis yeneen chaîne yi nga xam ne dañ fay dugal tam ay vidéo yu am solo ñi ngi leen di ñaan ngeen abonné fa abonné fii abonné fële ngir mën a am vidéo yi ñuy joxe fee ak yeneen vidéo yi nga xam ne moom la joxe fale ci kàttanu yàlla koo xam ne nag dafa bëgg a leerlu ay mbiram bi max naa listi listixaar su jox kook ñun incha allahu taala danañ ko booleeg sëriñ Maam Mor Mbàkke mu defal ko listixaar ci kàttanu yàlla ku yittewoo Bayré Ndiaye bi tam dana mën a woote ci numéro bi nga xam ne mooy affiché ko yittewo bayre njaay bi walla nga yittewo garab googu nga xam ne <clears throat> moom lañuy faral di joxe tam am solo lool su ko defee kon ñu jublu ci li nga xam ne moo ñu taxaju ko wirdu la boo xam ne wirdu moom soo ko déggee rek mooy loo xam ne danga koo war di def bés bu nekk bés bu nekk bii nag dañ koy def suba ngoon ñu defaat ko lu ñuy saxal la suba ngoon incha allah lu ñuy saxal la suba ngoon <coughs> ana nan lañ koy defee suñ ne subaak ngoon lañ koy def nag su la neexee soo julee suba ba pare nga def ko. su la neexee tam nga def ko ci suba si ci waxtu woo amee temps waxtu woo amee jot incha allah bés bu ne nga koy def ñaari yoon fii la tàmbalee nag dangay njëkk a def salaatul faatiha quatre-vingt-dix-neuf fois salaatul faatiha 99 fois mooy julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam juróom ak juróom soo noppee euh, nga def alhamdulilah 99 soo defee salaatul faatiha 99 fois nga def alhamdulilah moom tam 99 salaatul faatiha nag mooy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 آية بمنك سورة داود رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ندف 33 فوا 33 فوا فك جيتال لونغا لاغا تامبالي وون لاغا تامبالي وون ماي جولي سي يونتبي صلاه الفاتحه 99 الحمد لله 99 teg ci aaya bii ma wax léegi mooy rabbi firli wahab li mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab moom tam 99 soo paree nag nga teg ci yaa latifu yaa latif yaa latif ba mat 1000 fois yaa latif 1000 nga di ko def nag bés boo xëyee ak bés boo gonte koy def daal suñu borom tabaaraka wa taala dañu la defal ubbeeku gu yéeme lool waaye wërsëg wu yaatu lool ak yeneen i jagle jagle yi ci nekk mu ne su koolum day ubbi nit di ko defal tedd nga di ko jox wërsëg wu yaatu lool <clears throat> ñu baamuwaat ko salaatul fatixi aw salaatul fatixa 99 fois alhamdulilah 99 fois rabbi wa habli mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab 99 fois So, pare nga tek ci ya latif 1000 fois nga diko def suba ak ngon ngon gi nak mi ngi tambale ci ginaaw julli taksan japp timis inshallah allah muy lu am solo lol ñu ngi leen di ñaan ngeen aimé vidéo bi tay partager te su ngeen amee question ngeen posé ko ci commentaire yi asalaamaaleykum